salaam tout le monde ñun équipe nationale kickboxing bu Sénégal ñu ngi leen di jox rendez-vous le 5 le 6 le 7 juillet fii ci place de souvenir festival Eric Favre sport santé international suñu xarit la ñu jox ko respect mu am taxawaay bu mag boo xamante ni am na ko ci làmb tey jii man mi di wax yow bi ma bi ma gisee Tapha Gueye damay ree parce que li tax may ree dañoo mos a daje Touba boobu man xale bu ndaw laa ma ànd ak benn ndongo boo xam su ma ñëw Touba su ma kër mag bi may dal daf koy ànd ak doo xam ne àndal ak moom nga yóbbu ko pour mu ziyaar bañ a réer ma ànd ak ndongo boobu bi ñu àndee ba jàkk man ko eh Tapha Gueye mu ngi ne boobu su ma juumul yaa ngi yor Mercedes mais ñu ñëw taxaw di la xool di la nga ni booy da ngeen da ngeen maa xàmme man la yow yaay Moustapha Gueye <laughs> nga yëkkati mille francs yi bees tàq ci yooyu dama ñu hmm. sa combat yi nga bëri xëy na du ma la ko wax mais yëpp yow la man sa supporter laa wax Abdou Bakhoum sànq dama koy jégguluwaat ndax suma kilifa la te su ma mag la. Mm. man ak moom dañ naan nekk ba deux heures du matin une heure du matin place su débuté bu ñuy wax mbër ma ni Ama Baldé de xaw ma nekk xaleem kan la leerul mais man nekk xaleem leer na ma. ndax Tapha Nar bu mu saanal kii xale ba yëg naa Ama jëlal bopp bi mu nekk xale bu ndaw di fa ñëw. moom ñi ñu yar ma fa doon toog tuxu naa caaray di fa toog ba deux heures du matin ma dem ak Aziz Ndiaye mii. ñun ñëpp ñu fay nekk ba deux heures des fois su ma Aziz wàccee ba ci sama point bi ma jël taxi dem. moom kon suma mag la Amadou Kati da nga koy gis bëgg ko. Hmm. mag nag kenn du ko wax dangaa ngaa yaru hmm. mais di nga gis mag ñoo xam da ngay bëgg a mel ni ñoom. ci comportement macha allah ci xam li ñuy wax. ci xam li ñuy def yamale yëpp moom da nga koy xool rek macha allah bëgg ko. ah loolu la loolu lañ mës a xam ci moom Lamine suma rakk la. <laughs> suma rakk bopp la dafa am lu may xool ci moom. Hmm. di ko gis sama bopp wax du am mukk macha allah nga dégg ca Lamine. wala coow lam te lam bari na coow. te damay gis ni effacé wu ci milieu bi Paala nag moom dama naan ñaari nit laa am ci nitu làmb yoo xamante ni mën nañoo ñëw suma kër may ñëw seen kër muy moom ak Bécaye Paala daf may seet ma di ko seet. Mm-hmm. su ma namee ceeb bu neex nag est-ce que xam ngeen nag soxna si soxnaam bu la toggalee ceebu jën rek nga tudd yàlla. Uh-huh. waaw kon macha allah ñu ngi sant yàlla bës moom maa koy sant di ko gërëm. Ousmane Sonko nag li tax ma ni maa koy sant. dafa am ku ñuy wax dañu mës a daje man ak moom bi ñu dajee. boobu masque laa takk mu di ma xool di ma xool ba caag mu ni mu ni kim dendal aminte loo boobu mhm. mun ko kii kan la mun ko kii buur gi wala mun ko ah masque yi moo tax buur tekkil masque ma tekki masque bi ñu toog waxtaan mu yëkkati fa teraanga jox ma yëkkati numéro téléphone jox ma mais ma am xaritam boo xam ñu koy wax laaye Ablaye mu ngi dëkk caaro yi di ma defal lu ne ndax Ousmane Sonko kon maa koy sant di ko gërëm ak patriote yëpp di leen ñaanal ci li nga xamante ne président bi sumb na ko yàlla na ko yàlla suñu borom may ma ci biir Sénégal gépp te Sénégal tam làmb ji amaat jàmm jàmm nañ koy ñaan ci làmb ji tey wax jàmm mm-hmm. day wax jàmm incha allah per per baax tàggatoo waaw li yàlla toogaay bi rafet na trop di nuyu baax waa Pikine <coughs> di leen woo dimanche ci kàttanu yàlla rendez-vous yéen ñëpp ñëw leen mag ak ndaw ak ku nekk lu lu ku mën a ràmb ñëw sax ràmbal ñëw. bu kenn tiiti lan. waaw ñu fekk gaynde mu ne ñu yee ko jël fit wa loolu day tiitu lan tiit fu muy ne ci nit ñun duñu tiit mukk daa yomb tiit nii. Hmm. donc ci fànn bi nga xam ne bi itam wax dëgg yàlla moom lañ toog rafet na. di woo nag itam képp kuy patriote ndax buur léegi da nga xawal yàq sàq mi sama laaj. si ndax Ousmane Sonko man dama koo xam depuis impôt et domaine. parce que man mm. dossier yi ñuy liggéey au niveau de service des mines dañuy am affinité ak waa impo et domaine ndax dañuy fay impôt dañuy fay les cinq pour cent vignette ba jamono vignette mu doon góor goo xam ne kii góor yàlla koo xam ne kii bu la rombee ah. suba teel ci óol bi mm. dugg biroom boo ko gisaatee wàcc daa jot mm. traversé fenn fi muy toog lay toog di liggéey liggéey ba liggéey wàcc loolu man xam naa ko ci moom bu baax a baax a baax mm, mm. di woo tam nag képp koo xam ne da nga bëgg joomaay sama mbokk bu séeréer bi damaa ragal sax am na lu ñu bokk ma moom parce que maa ngi dégg ci ay mbokkam ñu tudd ay tur yoo xam ne yi ci sama biir famille dafa am ñu tudd loolu joomaay mm. il moom ma lijjanti ko ba xam kan non sa si lijjanti ko niroog ma am kenn ku magam ci mag ci moom niroog sama benn mag boo xam ne bi yàlla dafa dagal mu wàññeeku benn lañu ñoom ñaar kon Diomaye man tam maa ngi maa ngi koy ah. maa ngi koy ah. man nag wax dëgg yàlla PDS man bu rëy laa man PDS laa ka mm-hmm. man PDS laay topp waaye dama bëgg Diomaye mii ñu jàppale ko ci kàttanu yàlla mook Sonko état bii nga xam ne bii comme ni ngeen waxee nii mm. ñu ñu yi jàpp ci liggéey bi képp ku am xam-xam wala nga am métier jàpp naa di nga liggéey loolu daal laay waxagoon ci loola ama nag moom Sonko la woo moom ama moom nitu Sonko la à cent pour cent mhm. man ma woo Diomaye ndax suñu combat bi passé kat gis ngeen ni mu demee ñu bari sax jàpp nañ ne soto am na ci ndax braça mu takk ñi nii di ko soxnaa takk na braça ba def na lu nekk ba suñu combat yàqu kon nag dañu ñaan yàlla rek ci kàttanu yàlla euh, képp kuy patriote ñoo ngi lay woo di ñaan yàlla itam barab bii nga xam ne bii moom lañ war a jëm dimanche ma seq ko ñaari kàngam yi ndax entraîneur laa bu ko ak mën a kii euh, suñu grand kat yi nag moom du ma ko wax dara parce que suñu grand la ndax yu ci bëree bëri mën naa ne Pikine la nekk turandoom sax Pikine la nekk mu nga fa daan Pikine tey mm-hmm. ma ko fa daan gis démb ak barki démb mu fa ñëw mm-hmm. combat yi mu tëgg na fa combat boo xam ne bi sax am na coow ci layit bu mii layit bu ñuul xaay ba dem da ko muñ bàyyi ko te man li ci bari man fekke naa ko mu ngi nii. Mm-hmm. kon damay ñaan dama ko ñaanal yàlla moom itam sama borom may ko wér. ci kàttanu yàlla. dimanche nag ci kàttanu yàlla suñu borom may ci ndam ci waa Fass moom du ko wax. ci Moustapha Gueye mii la <laughs> ci kàttanu yàlla Moustapha Gueye indi sa mbër mi mu duma ko dal ko. Père Tapha lan ngay <laughs> tàggatoo. bi yaakaar naa ne uh, mat na ba pare mais uh, dafa am lu ma déggul jotaay ba léegi mooy. làmb ji ñaata dañ koy paase paas bi ñaata la tribune yi ñaata la ja ay wax na ko waaw ko fàttali ko ah, mënu ko mënu ko fàttali parce que euh, mooy kii bi mooy mooy mooy mooy supporter mooy supporter mooy supporter yi abordable quinze mille hmm? am na yaakaar naa mooy nekk ci suuf laa bi trente mille soixante mille soixante mille waaw léegi aussi que euh, lamb ji kenn du ko wane ci benn télévision. Hmm. dëgg la pay day am par pay per view. Hmm. Euh, ko bëgg a seetaan aussi day def w w w point vidéo point. vidéo TV. vidéo waaw. ngeen am ci plateau bi Moustapha Guèye ba tey Bekaay Mbaye am Mansour Diop am aussi ba waaxir doxanaa fa alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ba dimanche ak jàmm. aywa Père Balla lan ngay tàggatoo di sant di sant bu tàggatoo budul nu ñu koy waxeeti. budul tàggatoo waaw di nuyu ñëpp. di di di gërëm Kandji production. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla. dëgg la parce que tamit fu ñu toll ci làmb rek mi ngi ciy dugal loxo ci émission yi. Mm-hmm. ci journée yi. Mm-hmm. ma nga ca. koor ga ceeb ya ma nga ca xari tabaski lépp loxo ma ngi ci social nit ki nag bu dee lu mu am day dem ci famem bokk ak ñoom dañ koy yéene jàmm dëgg la kon maa ngi koy nuyu bu baax di ko ndokkeel uh-huh. di nuyu Serigne Ndiour Serigne Ndiour bu Osod bu Osod ca Paris Italie maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Sénégal yëpp di wax ne réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm Serigne Djib Fall Serigne Djib Fall Paka Lambaye maa ngi koy nuyu réew mi yàlla na fi yàlla mais kan mooy Wakana Fall Wakana nga Amérique New York yow xam nga Makana. déedéet kooku mooy lom social Wakana. Wakana Fall. waaw ma wax la loolu nag nga xam ko tey te yaa ma gën a xam Wakana. kaana xamu ko di nga ko xam. mais tey tey verte tax nga laal la. maam Thierno Wakana. laay laay l'homme social. am na xasida ku tudd Wakana. kon jeex na. jërëjëf wax ni daal réew mi nañ fi yaay ñaan yàlla jàmm. yàlla defal nu sutura. ba lépp loo xamante ni dëgmal nañ ko rek. ñu mën ko réussir. perkat yi. di gën a rek ñëpp. Ah, ah. na que kii. woote na de. di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Ah. Euh, di kontaan si waxtaan bi rek. te waxtaan bi rek waxtaanu famille la rek. Mm-hmm. parce que bu ñu la waxee ne maam góor gi mbay Guèye Fallaye benn njaboot la. Mm-hmm. nga xam ne kon ñun ñuy bëri suñu bii rek. voilà su ko defee nag euh, man Fallaye dama daan dem këram mu ñëwee fekk fekk këram toujours su mu ñëwee sawaay maa ngi koy fekk si wetam moom mën na si seede lu bari falaay di ñëw tamit sama bureau ñuy waxtaan ma jël si moom lu bari. Mm-hmm. Ah, di wax comme ni ma la waxee diggante moom Mbaye Cissé na ma meloon. Mm-hmm. ah Mbaye Cissé moom fu mu falaay mos a dem si àll Mbaye Cissé lay jël yóbbu teg si wetam Mbaye Cissé daan mu ànd mu yéen mbay si teg si magga yi ànd ànd ak moom daan fecc lenn rek laa la ma falaay defal bi ma ko bi ma ñëwee këram xool Pathé Baldé ne ma ne ko jox ma mu ree ba bëgg a ree <laughs> jox joxuma paate mm-hmm. te boobu paate bi muy gis gis gis mbër gi yëpp mi ngi woon si paate waaw mu bëggoon mu joxoon oh. moom moom moom moom si naqar mi moo joxoon paate wax dëgg yàlla kenn kenn du ko waxati wa tabaar fakal allah loolu am na solo ñu ngi kontaan ci mbokku internet ak téléspectateurs yi Lutte TV yëpp waaye mën a nekk si àdduna bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di nuyu tamit les sénégalais de la diaspora di leen ñaanal jàmm xéwal wërsëg bu yaatoo yaatu ay waay fii xal sab xol ah original neexal bu te na gu original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw